sifflé nañu si poids lourd yi. Birame Mbissine jël na tànk bi attention. Touba ak waa ma ne ak mber ngemb gi. attention Touba Touba ak waa Moustapha Faye aca combat sox mu ngi noonu poids lourd salmon Modou Jam Teri salmon salmon Modou Jam di troisième quart de finale ngi Salmon jamteri fi ci Kaolack. bu sori ba yegg si fii yàlla na yàlla delloo si jàmm salaam ba heure bi déwén ñu koy feete salmon jam tëri comme nii yàlla yokk mën na ni yokk am ami may la wér bi yaram yi képp ku fi toog tey yàlla na yàlla wéral may la kan wéral cëri ci barki yàlla suulaay waaw kon soo defee ñu daal di yeewee rek ngeen di dox ndànk nag incha allah ñu dox sunu yaay ñu daal di ci sànni Salmon Diam Terry amateur yi ñu ngi xaar. waaw président yi di dañ wax alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla bu baax man day Fatou Adama maa ngi sant àddina si yëpp maa ngi sant Sénégal di sant na Kaolack surtout Kaolack gi ma dëkk.

sama doom yële toog mu ñoom Ablaye Thiaw ñoom di euh, ñoom Issa Diouf ñu nga jóge ba Dakar nekk sama doom gis ngeen oto bii ñu sol Ablaye Thiaw mais moo ñu ko jënd oto si gàmmu Ablaye Thiaw moo ko jënd ma di leen di wax ne li ma leen waxoon rek man aw ay supporter ay doom laa am doom yooyu yàlla leen yàlla defal barke ak boo leen jullit ñaanal naa ñëpp baalu ñëpp ak di baal ñëpp àq di baal war ñëpp àq di leen di gërëm seet na ko mii mooy li ma la wax sànq rek wax naa ko fi sant yàlla ci kër ga wax naa ko Ousmane Diouf sama kër lañ jaar ma ne distance seet na ko da nga waroon a ñëw kër ga gën a waxtaan ndax nit boo koy jàppale da ngay koy xam mooy kan mu xam ne lay dem te kii nekkul am bi ci rek la may jàppale li ma mën bu ma ko mënee sama ñii ñëw tax ñëpp laay gërëm seen seen Kaolack seen seen Fatick ñëpp ñëw waa Ndangal Samb waa waa Fatick waa Dakar waa Mbour waa Passy ñëpp a ñëw gërëm naa ñëpp sant naa Salmon jam tëri. waa Koumba Is yaay la ma fi am tool aca beneen quart de finale bi sax ma ngi Jam Boy ordinateur quart de finale soog ordinateur fii si novembre ordinateur le premier choc des poids lourds ordinateur ba tey dara xewagul Boy Faye ordinateur ordinateur eh booy fay ordinateur ngay manuel booy na noonu Diam Terry ñaari noonu digg géew bi Boy Salmon attention li xew foofu war na ko ndomba Boy Boy war ordinateur war na ko ndomba mu ngi koy tegal seize xeex war na ko mooy fay ordinateur ñu ngay bëre bëre suuf li xew foofu li suuf gannaaw nañ ci ñu ngay dem station Salmon Jamteri promoteur yi seen combat bi métti na yàgg na acaar bi siflewaat na diggante Boy Faye ak ordinateur production Boy Faye yàlla sénék day bëre bëre jinne Modou Diam Terry génn Salmon par point aca Boy Faye ordinateur

Boy Faye ordinateur attention Boy Faye ordinateur ordinateur takk na ko ordinateur takk na ko mboti wala wéyale eh, ordinateur attention vai fay génn ñi troisième round baa noonu wala prolongation Yalla Sinig ak Boy Faye por una ocasión final combat bi ka la jox victoire ordinateur la jox victoire aca arbitre bi sifflé na première demi-finale poids lourd Toubacouta Birame Mbissine ata Touba dox ci kawam nga demi-finale poids lourd fii si Kaolack demi-finale poids lourd Buuru Saloum ak Biram Mbissine ñooy disputé demi-finale bi beneen demi-finale bi Modou Diam Terry la ak Modou Faye ordinateur Yalla station Touba jël na door na ñaari naax yi Birame a ngi arrière Birame a ngi daw Touba ngay top ak ñaari naax yi attention attention plaqué na ko génn na saako yi lu xew fofu abi nee na bërewaat abi nee na bërewaat avertissement pour Birame Mbissine langu na léegi na leer Toubacouta Birame Mbissine demi-finale poids lourd Birame benn avertissement ci

attention Touba Birame Mbissine Touba ngay code fii la Touba ngay bañ Birame na attention Touba jël tànk bi Touba jël tànk bi Birame bañ na attention Touba Birame Mbissine Birame Mbissine daan na Touba Gouta Birame Mbissine daan na Touba Gouta ndeysaan deuxième demi-finale modi Diam Terry ordinateur wa do dégg si waaw deuxième demi-finale Modou Diam Terry Modou ordinateur deuxième demi-finale Birame Mbissine moo taxaw final ñoom ñaar ku si daan dajeeg Birame Mbissine final Birame Mbissine sàng moo fi génnee Toubacouta ñaari moodu aca dernière demi final baa ngi noonu poids lourd Modou Faye jëm tëri ordinateur Modou Faye jëm tëri waa aca dugalal Cheikh Ndiaye Modou jëm tëri ordinateur ndox đi seet na ma đi ndox đi seet na Esir jaya Medina, ayo dong di mana ayo jaya Yakubu. Ayo, orang tu jono ko. Jam dia dengan bang. Esir jaya Medina, ayo dong Thank you. demi-finale baa ngi noonu Modou Faye ordinateur ak Modou Diam Terry dernière demi-finale poids lourd fii ci Kaolack le 11 novembre 2023 yaa ngi Fatou moo fi woote attention ordinateur jël na ko eh Modou Faye ordinateur ñaar xar yaa nga ca tey Diam Terry da ngay door na ko ñaari naax yi Diam Terry bañ na génne na ko avertissement ci kaw nee na mi-temps ar bi sifle waat na deuxième round baa ngi noonu Diam Terry ordinateur xamal na leen ne Diam Terry moom benn investissement si kaw Modou ordinateur aca Modou ngay bëre si kawam Modou Lo ngay bëre Modou Lo ngay gàdd xam na ne ordinateur mooy avantage parce que moom am na benn avertissement la fali mu jeexal combat bi balaa temps di jeex attention ñaari Modou yi ordinateur bi soog sol ñaari naax yi sol ngay foofu

attention ordinateur egg na suuf eexee jàpp na loxo ba moytul mu manuel <laughs> baax a baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf waaw merci Cheikh Ndiaye merci Sougou Ndiaye ordinateur sub gërëm nañ bu baax a baax waa ku ñëw ku taaru bi moom moo ko abal yaa tey boole ji ay siis yu bari ñu ngi lay jaajëfal beneen yoon yow Bambara promoteur moo du fay ordinateur ak jamtër yi waa amatul are nag kooku rek đi.

Léo Boyar Bleu Blanc final poids léger baa ngi noonu Léo Boyar Bleu Blanc attention Léo Boyar Léo Boyar jël tànk bu la blanc bi li xew foofu ah bañ na wala ci vert blanc bokk wala noir xey bu la blanc Boyar bu la blanc waaw Kayar moom lañ jàkkaar loolu lu ngeen moom lépp lu xonk fii ci kaw lax tàngaan lay xewee lu blanc moo def ngeen lu blanc li Fatou production égal bëri deux millions cinq cent francs poids léger cinq cent mille poids ah, lourd un million léwo jëli waat na attention léwo bu la balaa palaake na bu mooy tey bii combat bii final ma ne bii final salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi lay ñëpp di la ñëpp di la ñëpp. tonton Saliou Ndiaye maa ngi lay ziar de tonton Bakary Sarr. daa si loolu bayaat. daa bëgg jeexal combat bi. escalade de sa maman. ah. moom xam naa ñu xam nañu bu baax. jërëjëf xam naa ne Ablaye du wax waaye Ablaye ñu xam nañ ci moom lu bari su nagalee yaa ndey ci si man maa man la koy yóbbu te maa koy yóbbu gàmmu gi moo dagg ko te si côté si la ngeen gis tamit moo ko daggaan képp ku bëgg a gis yi demal fi nga xam ne mooy marché HLM deux voies yi boo demee ba foofu nee naa leen dinaa defar bi ñu waxtaan ko bépp jëlal ma yaay allo mu ngay wëndeelu wëndeel li nga xam ne Ablaye moom la def kon ñu koy ñaanal suñu bool bool bi ak waa Bari production yëpp ak ay doomu ne ñoom Pape Diop ñëpp ñu ngi àndal yàlla gën kaa jàppale ndax maa moom ñoo bokk suñu fàll kon nee naa lu baax rek lay am kon ñu koy ñaanal lu baax di ko sant di ko gërëm li ma leen wax rek comment nag sax daal a xewle ku mën a xay ku nekk bay bëgg a dugg say bakaar sa jëf leen ay la jërëjëf yaa ngay ensemble bi waaye marketing bi jàll na la le blanc Léo Boyard demi final poids léger demi final poids léger Léo Bayar bleu eh, ñaar xale yaa ngay bëree final poids léger baa ngi noonu Léo Bayar moo def ngeem lu li bleu blanc moo def ngeem li Lessé baa ngi noonu deuxième round baa ngi noonu Bleu Blanc moo def ngeen blu blanc la wala leen ginnaaw Léo Boyard def ngeen blu rouge li foofu daan na ko daan na jël na final ba daan na ko ndeysaan jël na final poids léger ba jël na final poids lourd baa ngi noonu final poids lourd de la soirée ordinateur Birame Mbissine ku nekk dem ngeen lu rouge ñoom ñaar xamante nañ ordinateur Birame Mbissine jël na remise ordinateur Birame Mbissine ordinateur Birame Mbissine Toubacouta la génne demi-finale ordinateur génne Diam Terry ñoom ñaar a ca final poids lourd baa ngi noonu fii si Kaolack le 11 novembre yaa nday Fatou production woote fii teg fi 1 million 500. Léo Bayar moo jël poids léger bi si kaw bleu blanc. final poids lourd baa ngi noonu diggante Modou Faye ordinateur ak Birame Mbissine. acca final loo yàlla. ñoom ñaar ñëpp ku def ku nekk ngemb lu ruus nga dem. ordinateur ngay sëkkatal biram door na biram misil ordinateur. ordinateur moo féetee seen gauche Birame Mbissine attention ata eh, Birame Mbissine jël na ko ordinateur génn na si. Eh, aywa arbitre ordinateur final poolor baa ngi noonu attention ordinateur lu mu nar ñoom ñaar yàgg nañoo daje xamante nañ attention ordinateur door na ko ñaari naax yi Biram Mbissé da ngi bañ Ornator berhabisin. Jemne jelar jige wasana me. Acha finalo yala. jiloor jigéen waasa name aca geneen suuf ordinateur sukk na ñaar tànk yi aca mu ngay forcé naax bi di manuel yeb ne jiloor jigéen waasa name yeb ne jiloor jigéen waasa name अपना जिला जिया है वासना में बटेटा रखा है गोल और ना तो इब्राहिम मिसिन और ना तो Babo Genodom advertisement mga iban. Ganon ako. ordinateur pour am na benn avertissement ordinateur Birame Mbissine koordinateur arbitre nee na mi-temps arbitre nee na mi-temps ndeysaan aca arbitre sifflé deuxième round bi ordinateur Birame Mbissine ordinateur moom benn avertissement si kaw Birame Ordinateur Birame Mbissine arbitre yaa ngi ñuy yàqal Thank you. Ndeye Birame Mbissine Yeah.

temps bi jeexee Birame Mbissine mooy jël final bi ci ko ordinateur 3 minutes moo des ci temps dara xewagul ordinateur Birame Mbissine temps bi jeexee ordinateur moo ñàkk parce que moom benn avertissement Dia c'est fini Birame Mbissine jël na final bi ci kaw ordinateur bisi Mbissine Birame Mbissine jël na final bi ndeysaan daan na ko par